dees ñoo leen. maa ngi leen di fay. Eh, di la wu bu baax. jërëjëf merci beaucoup eh. merci. Eh, dees mën nga dellusiwaat tuuti ci li jot a xew. waaw li xew comme ni ngeen ko déggee yéen ñëpp ah, comme ni ngeen ko gisee yéen ñëpp noonu la xewee waaw dañ ma yónnee convocation ma ñëw wuy ma xëy dem wuyu ma wuyu après on m'a mis en garde à vue c'est comme ça que ça s'est passé. Euh, def naa fa trois jours. mais ça a été très dur woon na ci yow ak sa entourage ak famille. waaw euh, ça a été très euh, métti na trop man dama naan métti mënul raw loolu daal parce que loo xam ne mosoo ko xam ci sa àdduna peut-être mosoo fa dugg peut-être da nga daan gis nit ñi nekk ci biir noonu nga yërëm leen. wala nga gis ay gris man j'avais peur des gris su ma ko daan gisee tout euh, mais yàlla def nga xëy ba euh, nga dugg fa euh, man dama naan peut-être ndogalu yàlla la peut-être aussi dafa bokk sama destin peut-être mënuma si woon échapper mësuma ko woon imaginer sama àdduna et je vais dire que quand j'étais là-bas permis de méditer en tant qu'artiste dama dama say jàngat lu bari ci àdduna waaw dafa ma permettre ma jàngaat lu bare bari bari bari ci àdduna. mais wéetoo ci moment yooyu benn yoon wala nga wéet benn yoon am fu sa xel dem comme sa xel dem ci say waajur wala yu mel noonu. waaw ku ci nekk moment yooyu noonu boo ci nekkee c'est normal nga xalaat say waajur c'est normal euh, parce que bu fekkee gisoo ndey gisoo baay euh, en plus euh, euh, gisoo leen dafay metti mais yàlla def na samay tante ñu ngi fii ñoom ñoo ma yar. Euh, samay magu ak samay rakku yaay ñoom ñoo ma yar bi ma nekkee xale ba tey ak samay cousine euh, ñoo ngi fi mais tey que ça soit muy euh, rappeurs yi di mbalaxmaan yi di ñeneen ñi def yeneen style de musique ñëpp a ngi woon foofu mais mu mouvement hip hop aw ma seen fay war na yàlla depuis vend depuis vendredi matin ñoom ñu ngi au commissariat central di jaabante di dem ak dellusi ku mel ni Fou Malade ku mel ni Simon ku mel ni Ama Diop ku mel ni Docta ku mel ni Matador Amadou Fall Ba xam nga Xumaan euh, Tidiane Kourouma xam nga ku mel ni euh, Fatim BMG Fatim mu nekk jigéen di def hip hop jiitu ma si mais ñàkk ki ñaan ak association des métier de la musique AMS ak tout le corps de la musique mën naa ne association yu ëmb musique sénégalaise yëpp gis naa leen won na yàlla mu awma seen fay ku mel ni Gise ku mel ni Aziz Dieng ku mel ni euh, euh, ku mel ni euh, Damien ku mel ni awma seen fay ñoom ñëpp ñoom ñoom. mais mais li ci mais li ci dees dund xëj na tey procureur gën a délibéré maanaam defal non lieu maanaam est-ce que dees dafiy jaaree. xëj na ànd ak association des oulémas wala imam yooyu ci liñ bëgg mooy ci côté accoutrement est-ce que jotul des tamit xoolaat euh, solinam tuuti waaw lenn dinaa la ko dinaa ko wax parce que ci lépp loo jóge ci àdduna euh, di nga si def jàngat euh, di nga ci di nga di nga bàyyi xel ci yu bari jàng naa ci lu bari jàng naa ci lu bari te aussi dinaa bàyyi xel ci lu bari Euh, ça veut dire euh, ci lii nii laa xamee ni en euh, artiste boo xasee ba doon ko nekkatoo yow kenn parce que soulèvement populaire bi toute la population sénégalaise xam nga sonn ci dégg naa réseaux sociaux yi dégg naa fan club des majors yi dégg naa sénégalais yëpp taxaw que ça soit amnistie que ça soit société civile que que ça soit les avocats les autorités autorités yi def seen intervention au niveau du procureur autorités yu bari nga xam ne dañ cee sonn taxaw si euh, sénégalais yëpp mënuma sax lim su ma limee damay juum euh, mais loolu noonu yëpp tey bu demee tey ba ñi ñi lekkatuñu naantu parce que mais mes amis mes amis d'enfance mes copines yoo xam ne ak samay mbokk ak samay fan ñoo xam ne lekkatuñu naanatuñu Euh, man su ma ñëwee sax suñu ñëwee sax xool si ma ñoom euh, le fait que ñuy jooy sax mujj gi damay jooy parce que euh, loolu bu demee rek ba nit nga tollu leen foofu rek xam ma yaay yaay yaay da ngay xoolaat bu baax ci lu bari daal. vraiment def musique am sans pour waaw waaw il y des projets qui sont là on a des projet qui sont là je suis artiste je suis rappeuse engagée man nag je jamais fait quelque chose pour choquer. ñaanuma yàlla choqué kenn. parce que yi gëm nañ ni que am nga talent sénégalais yi gëm nañ ni que ndaanaan nga mais li leen déranger mooy tey li indi problème bi tey mooy accoutrement ñenn ñu quoi. waaw euh, dina mooy loolu laa wax ma ne dinaa ci bàyyi xel bu baax te vraiment dinaa def lépp lu ma mën pour bañ leen di teg ci situation yu mel nii parce que même bu fekkee ni yow da nga nekk. ci ci ci ci dëgg wala nekkoo ci dëgg mais bu demee bu fekkee da nga nekk ci dëgg wala nekkoo ci dëgg bu demee ba askan wi di jóg nii pour yow rek kon moomatoo sa bopp ce style euh, je l'ai choisi bu nekk benn style bu particulier mais malheureusement y des gens qui n'ont pas compris ce style euh, mais vraiment maa ngi baalu ñëpp ak non non du ma wax du ma wax du ma wax loolu parce que man euh, mon style euh, c'est mon style mais dinaa xool euh, naka lay def ba nit ñi ma bañ leen mettre dans des situation yu mel nii ça veut dire di leen maa ngi baalu ak ñëpp daal maa ngi baalu ak ñëpp ci weeru koor lañ nekk nit ñi bàyyi seen yitte bàyyi seen lépp te ci weeru koor lañ nekk te sénégalais gis nga ni ñu fonkee weeru koor ak ñëpp ay woor ñëpp ay julli ñëpp du ñu tal sax wax mais bi li amee ba tey ñëpp a ngi wax ñëpp a ngi euh, sonn euh, dees major kon euh, awma ma fayu sénégalais yi maa ngi remercier ñëpp di leen baalu àkk bu baax di leen baalu àkk maa ngi baalu ñëpp àkk di leen wax baal leen ma àkk man des Major maa ngi leen di jéggalu di rafetlu yéen ñëpp ni ngeen sonné ci man maa ngi remercier aussi euh, buur am na ñoo xam ne aussi foog ma remercier leen ñooñu tey bu dul woon ñoom tey peut-être ak ak ñenn ñi des Major du tool fi du du duñ ko gis ci bi ci tey mooy samay avocat euh, sama avocat maître Bamba Cissé Euh, vraiment depuis biñ ma jàppee ba tey dafa sonn sonn ci sonn ci bay bëgg de lu ne def na ko maître Bamba Cissé mention spéciale à maître Bamba Cissé mu nekk quelqu'un de professionnel ku xam liggéeyam koo xam ne vraiment à partir d'aujourd'hui je lui respecte je dis respect à maître Bamba Cissé aussi maître Baro maître euh, Amadou Ly euh, maître Silva mënuma liim ñëpp dañoo bari sonn ci mais sama avocat moom amul morom vraiment maître Baro amu leen morom maa ngi remercier aussi presse bi.